Euh, gaynde bi jot a màtt loxoom tey nekk ñu ak waa ji toog sëñ bi nuyu nañ la. noo def. tur bi naka la. Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade yow. nga wala. éco guide. éco guide. éco zoologique bu ànd. léegi yow euh, sëñ bi Wade ñu gisoon la nga nekk ak gaynde bi euh, parc Hann. noo doon def euh, ba gaynde bi màtt la. bon di foog moom rek loolu yàgg naa koy def mais keroog dogalu yàlla la rek waaw seex sama loxo bi fexe naa ba bàyyi ko jot na mu gaañ nag gaañ bu metti problème bi mooy ñun dañoo amul prise en médical médicale travailleurs yëpp amuñu ko am na ñoo xam ne am nañ ko mais am na ñoo xam ne amuñu ko te lu toll ni zoo yaakaar naa ni loolu. war nañ ko dépasser prise en charge médicale mais yoo xam ne war nañ koo dépasser man yaakaar naa ne daal zoo ànd rek moo amul loolu daal gaañu gaañu bu metti yow yaay faj sa ngi ni tey boobu ba léegi man maay faj sama bopp depuis dimanche la bi am dimanche ngoon boobu ba léegi sama xaalis sama xaalisu xamel ci laay faju ba ci tey benn waa ju baax moo fekk mu ne lan la ma ne ko sama loxo mooy métti loolu ci dal ma ne ko gay na moom mat mu ne ma kaay ñu mais boobu ba tey euh, coow li bëri na ñu ngi ne yow am na sax ñu naan euh, yow da ngay doon jël euh, karaw gaynde gi di ko jaay loo tàmm nga def loolu noonu loolu moo waral sax ba nga jéemee nekk. bépp liggéeykat boo xam ne mi ngi biir zoo aar jaar nga ci. jaay karaw gaynde boo demoon tey zoo di nga fekk koo xam ne moom moo yore gaynde yi bi nga ko téye nii ci loxo bi di ko jaay. yow da doon jaay karaw gaynde gi nga ko doon jéem a dama koy maa ngi ko doon jaay bien sûr parce que nii dañ koy soxla. jaay bi ngeen di jaay karaw gaynde gi c'est pas interdit ou bien. bon interdit ou pas interdit gis naa ñu koy def parce que am na ñu ma ko jiitu ñu koy def.

waa góor gi Wade ñu delluwaat tuuti si ginnaaw ci euh, li nga xamante ni moom moo di euh, fee yi parce que gis nañ ni que ba fee yi amee am na ay touristes yu nekkoon foofu noonu am na aussi yoo xam ne am na ñoo xamante ni tamit ay sénégalais wala ay sénégalais lañ woon yoo xamante ni ñu ngi woon foofu noonu mais euh, ñoom ba ñu ba affaire bi di xew dañoo gis ni que au lieu que ñoom ñu ñëw jàppale la. pour que gaynde bi bàyyi la mais nous dañoo jël seen téléphone yi di filmer ak di naan euh, di di commentaire naan gaynde bi moo suuroon euh, ak di wax ay yoo xamante ni daal yow noo ko waaw loolu phénomène la boo xam actuellement ni bëri na parce que accident circulation ngay gis koo xam par exemple métti la na ci accident mais sax au lieu ñu xalaat aux pompier wala au lieu ñu xalaat premier secours yi. ñoom seen xalaat li mu leen mooy mooy filmer bay filmer ki gaañu ah loolu c'est un phénomène déplorable loolu Sénégalais yi war nañ cee jóg xam ne loolu dafa ñaaw trop parce que man keroog gaynde bi bi muy jàppee sama loxo bi yuxu effectivement parce que dafa ma bett. moment boobu lan nga yëg si sa yaram. li mais li may yëg mooy par exemple mu yàbbi sama loxo rek ah. yàbbi sama loxo rek lepp lo xam par exemple mi ngi doon ñew suma xel moy lu may def ba mu yàbbi sama ñu gis ni que yéen ngi liggéey euh, liggéey bo xamanteni c'est très dangereux yéen ñaata ngeen foofu noonu. personnelu zoo bi ben agent assermenté moko nek ñoo sinon ñeneen ñi ay garde lañ ak personnel civil moy animal yi ak man gidd bi waaw. kese yaa fa nekk gidd. kese juróom-ñetti lañu nag mais gars yi di bàyyi di bàyyi ba man kese maa fa des actuellement. bàyyi boobu naa condition condition condition yu yu métti condition yu baaxul parce que doo am doo am par exemple sa sa sa licence à l'université nga ñëw fii ñu lay fay ay fukki junni ak ñaar ñun actuellement nii ndax nañ ñu ba yóbbu ñu banque. ci fukki junni ak juróom-benn est-ce que loolu c'est normal te Ablaye Wade moo signé woon ni képp koo xam ne amuloo 100000 francs waroo dem banque mais ñun amuñu 100000 francs mais voilà 3 4 ans léegi ñu ngi nax nañ ñu ba yóbbuñu banque te yéen xam ngeen ni banque ni muy doxee këyit bi gën a ndaw du la ko may waaw. léegi yow sa loxo bi matt matt bi euh, gaynde bi man foofu laa yem. ndigalooy maal. wana la ndigal bàyyi góor wana la ndigal koy euh, jaajëfal moom euh, góor gi wàdd euh, ci li nga xamante ni moo di disponibilité di ko ñaanal loxoom bi tane ak jàmm yéen tamit ñu ngi leen di jaajëfal di leen jox dig daje beneen yoon ci yeneen actualité ndigal te ba maam say njaayooy ndigal baal jambaari xel koom jambaari xel koom ndigalooy baal jambaari lislaam nee na lees soxyi nee na lees wawul a sabiigi kumba faal qu'elle fallent.